nationale yëglekaay bi di la Soleil nag daal di xam ne ne présidentielle bi kay moom jamono ji nag du ko amalati ci date bi ñu ko jàpp moom njiitu réew fësal na ab décret buy xam ne nag ne élection yi ñu bëggoon a amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février dañu koy dàq ba jëmmi jamono mu di ab dogal goo xam ne rek ma ngay tàmbalee xaajale nag lii di classe politique bi rawatina nag ñi fareg waa ku jéggi Cheikh Tidiane Koulibaly mi ñuy tudd ci wàllu ger nag bokk ca conseil constitutionnel tax na nag ba jamono ji ki nga xam ne rek mooy secrétaire général bu gouvernement bi di Abdou Latif ndombal tànkam assemblée nationale jamono ji nag ña ngay waajal ab plénière bés bi le jour di pekk coup de taille ku jégi fas yéene jongoruwaat nag ci kanamu assemblée nationale ngir amal beneen juin professeur Abdoulaye Dièye di xamle ci biir yëglekaay bi ne nañ wax nag kan mooy doon président de la république bu ñu yeggee ci ñaari fan ci weeru avril présidentielle bu ñu reporté mu jur ay fitna assemblée nationale ak waa conseil constitutionnel ne ci xiirop Sénégal gu tàng jéeri jamono ji nag Macky Sall daal dinay effacé nag scrutin bi nga xam ne rek jàppoon nañu ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ay candidat yu ko bëggut a dégg nag tàmbali seenub campagne mu jur ay fitna ak i jàppante yu dox ci seen diggante ak ñii di way takk der yi président Macky Sall nag ma ngay xamle li waral nag mu daal di jël nag bi la décision yëglekaay bi di dellu soit ci kàddu yi président Macky Sall ne duñu bàyyi mukk réew mi nag di tàbb ci ab crise boo xam ne rek duñu xam fu ñu koy saafarawee Thierno Alassane trahison gën koo rëy monseigneur Benjamin Ndiaye di xam le ci biir yëglekaay bi nag ne am nañu jiixi jaaxal loolu jamono ji nag ci li xew ci réewu Sénégal ay manifestation ak i jàppante yoo xam ne rek démb daat nañu koy nemmeeku ci ay gox yu bëree bëri Aminata Touré Anta Babacar Ngom teg nañu leen loxo démb nag waaye mujj nañu leen a bàyyi Guy Marius Sagna nag di xam le ni nag peuple bi moom di négocier benn yoon juróom benn weer jàpp ay at nag ngir ñu daal di cay tuxal nag lii di ay élection député yi tey ji nag daañu sëgg ci ab plénière boo xam ne rek dinañ ko amal amal ci assemblée nationale député yi nga xam ne rek ñoom ñoo fa rek waa yow ña ngay sàkku ci askan wi nag ñu ñëw toogaanu ca buntu assemblée nationale ginnaaw bi ñu tuumalee nag frère am bi ci wàllu corruption moom Abdou Latif Coulibaly nag daat nay démissionné ci gouvernement bu Sénégal laas quotidien nag dellu siwaat ci tuxal gi ñu tuxal présidentielle yi nag mu ne président Macky Sall jël na virage bu dangereux jamono joojee nag organisation internationale yu CEDEAO ak yu union européenne naka noonu partenaire bilatéraux yu Sénégal yu ci mel ne waa États-Unis ak waa France ña ngay fësal nag seenum njàqare jamono ji nag di woote nag ngir ñu daal di fixé ab date ci nu mu gën a gaawee ngir amal ca élection présidentielle yi Sénégal gu jàkkaarloog boppam loolee nag léeg bi di enquête quotidien daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk tuxal gi ñu tuxal élection présidentielle yi nag jur na jamono ji nag ay fitna yu jéggi dayoo ci biir réew Sénégal président Macky Sall nag ma ngay leeral ci biir yëglekaay bi li waral mu jël bi les décisions nag fitna goo xam ne rek ànd na ay arrestation jàngu bi nag jamono ji ma ne rek mooy tuxal gi ñu tuxal élection présidentielle yi yor yor bi di pekk coup d'état constitutionnel ne Karim Wade proposé na président Macky Sall daal di koy imposé démocratie bu dellu ginnaaw gën a fës ci xëtu yëglekaay bu Walf Quotidien nag dellu siwaat ba tey ci annulation bi ñu annulé nag lii nga xam ne moo di élection présidentielle yi ñi fareek opposition bi nag ñu teg leen loxo média bi ñu daal di koy censuré ay violence ñu daal di koy nemmeeku nag démb ci biir Ndakaaru ku jégoogee nag di woote ngir ñu daal di toogaanu tey jii te buntu assemblée nationale yéenekaay bi di samp laaj mu daal di àddu jëmale nag ci lu ñu mel le quotidien yéglekaay dippee ko sale coup de force di xam ne nag li waral président Macky Sall daal bi bi jamono ji nag danañ song boobee décret ca cour suprême Sall image loolee la l'observateur daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk dialogue national bi nga xam ne rek moom lay sàkk ñu daal di koy amal nag yéenekaay bi jàppee na ko daal ab risque bu rëy ci opposition bi naka noonu noonu nag ci moom président Macky Sall guléet réew Sénégal nag ñu fiy toxal ay élection yoo xam ne rek dañu koo jàppal date ba noppi nag la xewoon ci 23 juin nag moom la ñu nar a gisaat tey jii boo moytuwulee ca buntu assemblée nationale wax ci wàllu tàggat yaram réew mi sport nag dellu siwaat ci waa Marseille yi nga xam ne rek dàq nañu kii di Pape Gueye ci seen équipe bi nag journal Stade dellu siwaat ci CAN 2023 bi nag ak Ferdinand Coly mi ancien défenseur bu gaynde yu nag ma ngay dellu équipe nationale bu Sénégal tey jii la gën a taxaw nag 2022 sunu lamb dellu siwaat ci jongante bi amoon démb ci arène nationale ci diggante Zarko ak Boy Niang bu ndaw yéenekaay bi ne Zarko moom jaarale na ko nag fa mu daan jaarale ay moromam am ndam lu rëy ci kawam jeexale yëglekaay bi ak mi Rewmi Quotidien dellu siwaat nag ci fukki at ak juróomi nga xam ne rek maggal nañu ko anniversaire mi Rewmi Quotidien yéenekaay bi ne njiital group promo consulting bu Rewmi Network di Mbagnick Diop màggal na anniversaire boobee nag di xam ne ne lii daal ab confirmation la nag ci paysage médiatique bi nag directeur général